jërëjëf mbokk yi nga xamante ne bii yéen ngi ñuy topp ci euh, Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy amati bu baax a baax xam nga ne tey nag ñu ngi fii ci Fass Ndiaga Thioy diggante fas Ndiaga Thioy ak Amdalaay mën naa leen a wax ne un la xam nga ne barki démb rek Leewtoo TV ànd na ak équipe bu am doole ñëwoon fii ci am Amdalaay tey nag ñu ngi fii ci fas Ndiaga Thioy kan la fi àndal Fallou Ndiaye borom njaay production. tey di samedi le 27 février ak suba le 28 février Fallou Ndiaye la ñu fi àndal mu teg nag 1 million 250 mille 250 mille yi mooy léger bi wante lourd bi mooy 1 million bi gis ngeen bëri noonu ñi ngi dugg si ñi ngi def li nga xamante ne bii mooy seen ay débat dépp mbokki amateurs yi moon ngeen làmp wante tey ak suba incha allah bu ci yàlla àndee da ngeen mandi làmb ndax danañ leen woon la nga xamante ne bii fii dong ngeen koy gisee ci Leewtoo TV lépp lu jëm ci làmb incha allah daañu leen ko won topp leen ñu ma ànd ak sama caméraman ñu dugg ci ruq-ruqaani làmb ji gu luqatil leen lépp la nga xamante ne bii xeetu làmb la rek won leen ko ci anam bi ngeen ko bëggee lool ci kanam tuuti lay doon sama gaay ñu dem incha allah. sama caméraman waaw lépp jàmm lépp waaw. fan nga jógee. man Ndiaga xoolal caméraman bi. waaw maa ngi koy xool bu baax a baax. jaga jaaw nga jóge. waaw waaw. lan moo la man jël si drapeau bi rek. drapeau bi nga jël waaw. loolu est yombul. non dama koy jël. foo ko teg. non dama koy jëm sam bopp. mel nga la. waa Ndiaga Niaw dañ maa yónni yàkkam dama ko waa. yàkkamte ma drapeau kon ci kanam demal jël rek nga ñëw jaajëf waaw lépp jaam tur bi mbalka mbalka naka mbalka mbalka mbalka mbalka waaw mbalka bi xóot na wala xóotul xóot na de lu nekk ci biir mbalka bi yàggul dara maa final maa ganja fii nii yaa finalu maa ganja yaa ganja waaw lam bee passé waaw mais mbalka bi lan moo nekk ci biir mbalka bi ah dama ko rek dama ko ah. si sama mag rek koo doon. waaw dama ko doon sama quoi. tey lu la andiwaat fii. waaw dama bëggoon ñor liwaat rek dandiwaat sens rek di dak dak suñu wërsëg rek xam nga rek ay xale lañ. kon tey dina tàng. dina tàng dina neex ay ay naataango kese bi taje ñu ragaluñ loolu ay ndaw lañ. tey looy yëg. yëngal. yëngal waaw waaw. looy wax Leewtoo TV. neex yàlla yàlla na yàlla jàppale ngeen dem ci kanam yor ay télé ay télé parce que dafa neex instant yéen a ñu woon billaay walaay taalaay yéen yéen yàlla moo billahi walaay taal li dafa neex quoi billahi walaay ngeen ñoo xam nga senegal xam nga ngeen jàppale ndaw yi ñun kenn xamuñu mais yéen ay taw ñoo xam ñu billahi walaay li dafa neex xam nga rek mooy loolu mais mënuñu leen defale bu ñaanal rek yal na yàlla jàppale mais leen yokkute lu ngeen bëgg seen adduna yal na ko yàlla defal li nga takk lan non lii gars yi ñu ko jox rek <laughs> ñun taabe borom taaru lañ jaajëf ñu ngi lay delloo ziar tur bi nan la Neymar Neymar waaw Neymar bu pare wala bu lamb ji mo bu lamb waaw xam nga sa turandoo Neymar. waaw am naa ko am naa ko nii rek. mais mosoo koo gis. non mosuma koo gis nag. mu mel ni yaa final woon barki dem tey loo jël loo wut si. waaw ñoo ñoo ñoo ñëwaat ñëwaat compétir rek lu ma yàlla may nga xam ne noonu la quoi. tey ren lan nga amagum. tey am naa ñaari ñaari final maa jël maa jël fii lambu bañun fi xaw ma biir Serekunda maa ko jël maa jël dàngay nag bi. am nga laa yaa ko finalu barki démb. waaw maa fi finalu. ñaan ñaan yàlla ko final waat fii quoi. tey looy wax sama doom yu bëri yi fi nekk tey lan nga leen andil loo leen lu bees. lamb ji fii. ndey ci diggante Johnson ak Allah. Johnson moo ne woon gannaaw àll la ñu jàkkaar lool wante beneen combat bi am nañ fële diggante Selemele ak Mbalka Mbalka moo takk petaaw yi ci lox ci tànk bi noonu Selemele moo ngemboo ngemb bu bule bi Mbalka signalé na ayca Mansour jëlal ma fële takk na ko ma kay tuur da koy dëpp wala da koy yaru doon na ko ci suuf ah Johnson daan na àll waaw waaw ñu dem dem ci diggante Selemele diggante Sélémbélé ak ki nga xamante ne bii mooy Mbalka Mbalka mi xoot na walla xootul danañ ci xam dara. Sélémbélé moo ngemboo ngemb bu bële bi Mbalka moo takk petaaw yi ci tànk bi waaw waaw. di leen fàttali fii lañu nekk ci Fass ci Fass Ndiaga Thioye Fallou Ndiaye production lañ fi àndal. mu teg million deux cent cinquante mille pour bi di leen wax ne léger bi nag am nañ cinquante huit litres maanaam juróom fukki mbër ak juróom ñett ay ca ñoom ñaar teggante nañ bopp jàppante nañu loxo fippu bàyyante diggante njool la ak ndaama mbalka mooy njool mi wante selembele mooy ndaama lii ñoom ñaar ña ngay jéem a naxante jàppante nañuy loxo diggante Mbalka ak Selemeleen na jeex waay ña ngay jàppante ca kaw ay eh, jël am na foofa waaw waaw mbalka mboot na ko Sélébé jël tànk ba mbalka mboot ko lan moo xew mbalka daan na ko waaw waaw mbalka daan na Sélébé jël bu set wecc ma koy Mor Ngom grand tambour major li mooy ambiance lamb amateur yi nga xam ne ambiance rek lañ bëgg. mbër ziar naa la. delloo ziar. mbaam nga jàmm. am naa jàmm bu baax. tur la. duubal. naka. duubal duubal. jurbel. ah mais fan fan dëkk ci jurbel. man jagle. jagle. laa dëgg jagle. ah jagle. ok mais mbër maa gis nga yor style bu garaaw. mooy sikkim bi sikkim bi. waaw loolu yàlla ko def rek. ah Bar day yor sikkim. ah day yor sikkim. waaw. Ah. ah lan moo la andi. bëre rek moo ma indi. yoo jël si. drapeau bi. yoo bëgg a fan. biir géew bi. arbitre bi wax ñoom sifle na génn seen diggante ñoom ñaar. Abo Sarr moo am ngeen bu naat bi. nekk suñu côté ndeyjoor. olympique moo ngemboo ngembu bu xaw a doomu taal bi nekk suñu côté càmmoñ ñoom ñaar ña ngay lewaatoo daw nañu tegante bopp ndenge ñent nañu attention eh eh olympique lu muy def nii olympique olympique daanu na olympique def na quatre appuis Abo Sarr na olympique waaw waaw Abo Sarr jommi nga bu ragal loolu. maa ngi lay nuyu. maa lay ziar njaareem. maa nga jàmm. bravo naay sant yàlla bu baax baax. lan la andi lan moo la andi Fass Ndiaga Thioy. non maa ngi fi léegi fi nekk. maa ngi fi maa ngi fi bu baax maa ngi fi. lamb yëpp maa ngi fi maa ngi fi maa ngi fi maa ngi fi waaw maa ngi fi bu baax. tey loo jël si. a ah, lamb ji. sama yaay laa bëgg yóbbul dinaa barki sëñ Bamba dama dama leen daal si kàddu am na. xam naa ne bandi nga saay saay nga mais ñi ma fi dañ laa ëpp doole. du doole ñu am na di daan xoolal am na di daan du doole xel la xel. xel xel. xel ne xel ak doole am na daan ñëpp am nañu daan barke sëñ Ba am na daan xoolal seenal seenal seenal billaay wallaay. naaj sax. waaw gis nga. waaw gis nga. di ñaan yàlla yàlla may ma fii ndam rek ma jël laamu ji. waaw sa nopp bi ci nekk nii. sama nopp bi dara new. sumal ma nopp bi wan sama nopp bi dara new si. Ah. waaw waaw waaw gis nga contact moo ñu koy def quoi. dégg naa bu metti moo koy def. waaw gis nga ñun si bëre lañ ñu yar. waaw si bëre lañ màggee quoi te bu ñu tëb rek def ko dañ koo jàng xam nga ba qualifié si quoi. tey fii lan moo fi am. tey am na ambiance xam nga làmb ji nee na trop ñu koy woy ñu ngi koy tëgg. waaw te ay morom rek a fi daje laamu ji tey daal dina neex waa gis nga fas yéenee def lan. ah waaw fas def kirim rek. def lan kirim rek. waa kirim ëpp na. billaahi damay def kirim. seetaan ma ñoom rek ci kanam ma taagoog ñoom. ñoom ñëpp ngay fallax. ñëpp billaahi wallaahi. taxaw dëgër rek. taxaw dëgër suul tànk yi ñeme jam-jam. taxaw dëggal suul tànk yi. ñeme jam-jam. ci kanam lay leer. waaw gisal xoolal ba si kanam. kii ba léegi. diggante Hôtel joor ak Sourang ñi ngi ci biir géew bi Hôtel Dior moo ngeen boo ngeen bu vax bi won ñu gandaaw Sourang moo jàkkaarloog ñun waaw waaw tey làmb ji neex na te daal sama xol sedd na ndax maa ngi gis bëre maa ngi gis ambiance diggante Hôtel Dior ak Sourang ñi ngi ci biir géew bi ñoom ñaar jàppante nañu ca kaw oh Sourang daa bëgg a dem de mooy tul Hôtel Dior Sourang ma Hôtel Dior mi diggante Sourang ak Hôtel Dior ñoom ñaar ñi ngi xoolante ci biiri bët Bass Thiam maa ngi lay nuyu bu baax a baax xeeru Jurbel mi ngi fii Ndefleng mi ngi fii Aïcha ñoom ñaar daw na ndengeñante ndengeñ ba sax na de waaw waaw attention mboot ma oh àggagul xale ba da koo croisé da koo takk surang da ko takk at ma attention o oh, tagal na ko sees surang daan na hôtel Dior maa la ko wax jël bii de moom kenn du ko werante no drapeau bi ci kaw loolu mooy Sénégambia ak Gambia ca kaw ñu ngay gis drapeau Sénégal di flotté wante ñu ngay gis drapeau Gambia di flotté loolu mooy intégration africaine loolu mooy wane ne réew yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax boo ñëwee Sénégal di nga fi fekk ngemboo ngemb bu weex tàll bi Neymar moo ngemboo ngemb cuub bi jàkkaarloog ñun King Kong ma ngay takk sengoor ga ma nga koy roof da koo yolomal waaw waaw waaw waaw la gis nañ ko barki démb ci am da laay mu bëre ba dem moo bëre ba dem final moo bëre moo bëre ba dem final tey nag King Kong la dajel King day jouer film Neymar day football waaye ñoom ñaar tey fii ci làmb ji lan daje fii ci Fass Ndiaga Coy ñoom ñaar rek lañuy bëre barki yonent bi yàlla na yàlla dolli jàmm ñoom ñaar ña ngay lewaatoo Neymar nag technique see la wante King Kong ma ngay dem King Kong ma ngay dem ca kaw ndey mbaar waaw waaw Mansour ñaar yëpp Mansour yaa ngay am diggante koŋ-koŋ ak Neymar Mba waaw waaw ñoom ñaar ñi ngi déglu wante attention lan moo am fële oh moytu leen poto bi kalba jaxabal na ko mboot na ko oh daan na King Kong Neymar moo daan King Kong Neymar daan na ko ayca Mansour ñu jël beneen combat nuyul ma Faye Ndiaga ne ko Mbaye Babacar mi ngi lay nuyu. ndeysaan nel Faye Ndiaga Mbaye Babacar mi ngi lay nuyu. oh Faye Ndiaga dafa war daan na King Kong tey. daan na ko. ñu dem ci beneen combat attention oh! na trois appuis def na trois appuis attention ma nga koy jéem a dëpp mu bañ ma ngay jàpp jàpp na ba mu dëgër lan lay fexe lam na loxo ba oh dëpp na ko daan na ko waaw waaw daan na la. bon maa ngi lay delloo si à nan la. Babou Diouf yor ndamal daaru Babou Sarr bu la neex rek. waaw. tey yaram dafa sama yaram dafa bi mooy sama deuxième fois yi lamb bi fi njëkkoon am maa fi jëloon maa ko jëloon te ñaan naa yàlla bi tamit ma jëlaat ko yóbbu ko Diouf man xanaa yar ak dëggin ak confiance li ma jàng ak li ma woon dinaa ko defi bu soobee suñu borom waaw. mbëri. mbëri ñu ñu def respect rek parce que amoon. keroog euh, vraiment neexul quoi neexul si mbër yi parce que lañ yaakaar euh, léegi nag mbër yi bu ñëwee ba Gambia bu nga indi fi ay Thiès ay problème vraiment nañ xoolaat si loolu quoi ñun mbër yi. jaajëf waaw jaajëf merci. maa lay fay maa lay gis tey nga ñëw Fass Ndiaga Thioye lan moo la andi. lamb rek lamb rek jógee Ndakaaru ba fii jóge Ndakaaru ba fii bëgg làmb lamb te yàlla rek tax ne kay amateur moo tax ñu bàyyi suñu yite yëpp ñëw seetaan si làmb ji waaw. looy wax état bu Sénégal ci làmbu Sénégal kon. di ñaan rek Macky Sall ak Matar Ba ngir yàlla ak yonante bi ñu bàyyi làmb mu teg parce que ñun làmb rek la ñu am. jaajëf sama sëriñ ziar naa la wàccal masque bi. ça va promoteur. naa la. delloo naa la ziar. ah président amateur yi. Ah, ça va. wàccal bi gars yi la tuuti. ça va nu mu demee. waaw yaa ngi si jàmm. maa ngi ci jàmm ju bëri. nga jógee Sénégal. Dakar waaw Sénégal waaw. ana Elimane borom Seras. ñëpp nga fa ñëpp a nga fa. looy wax looy wax tey mbokk mbokki ak lu làmb. kontaan rek kontaan rek kontaan rek parce que lamb rek a tax ñu jóge Sénégal ñëw Gambia loolu rek a ñu fi indi vraiment ñoo ngi remercier Fallou Ndiaye. mi nga xamante ne nii moo initié bés bi kontaan nañ bu baax a baax. bu mel ni yéen amateurs yi da nga ne namoon lamb. waa dañoo namm lamb trop nag dañoo lamb namm torop parce que boo xoolee lamb dafa manqué Sénégal moo tax ñu ñëw Gambia loolu rek a ñu fi indi. kon tey looy wax looy wax état Sénégal. état Sénégal wax ne rek mu def comme ni état Gambia def bàyyi lamb ji ñu mun a seetaan. namm nañ lii trop parce que bu ñu jógee Sénégal ba Gambia ndax lamb xëy na dafa am rupture foofu ñu ngi leen di ñaan nag vraiment ñu jéem a def ba lamb di amaat Sénégal. tey bi nga ñëwee Gambie dundaat lamb dundaat ambiance lamb lan nga yëg ci sa yaram. kontaan bu baax a baax rek mu fàttali ma lu baax mu fàttali ma lu bëree bëree bëri vraiment ñoo ngi ñaan daal lamb bi amaat Sénégal daal loolu la ñuy ñaan. jaajëf merci beaucoup merci. xonq nga ngemboo ba pare takk sangar gu weex ci sa ndigg ah waaye xam naa nag bokkuñu fi ñu jógee ndax Ndefleng moo nekk suñu loxo ndeyjoor ma nga jóge ba Bawol jóge Jurbel eh loolu dóor la wala lan la ñoom ñaar ña lewaatoo waaw génération Ndefleng eh xale bi mbërëntaan la de daf ko doon jéem a summeeku ñoom ñaar ca kaw la ñu jàppante ku ci nekk croisé na sa morom ba mu dëgër. waaw lay la xëy lan la waaw mais booy booy booy noo ko daane booy noo ko daane sa maa ko maa ko xel fuuf maa ko maa ko xel mais yaay kan ma pour mu leer keccene yow yaay kan pour mu leer keccene mu leer pour mu leer keccene waaw mais tey leer na de waay nañ kay waaw mais booy yow lan la man ci maa ko mën pour maa ko ay waay jom metti na